والصلاة salaam على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم mbokk jullit yi teewati nañ fii ci ndimbalu borom bi subhanahu wa taala ngir ñu gën settantal li nga xam ne mooy suñu sabab ñu ñëw ci kaw suuf tey nag ki ñu dajee ci néegu borom bi subhanahu wa taala ngir mu fàttali ñu nekk na koo xam ne ku ñu ràññee la ci jëf nii te ñu naw ko ci wàll googu ak wóolu ko it ci xam-xamam te xam nañu ne mooy Cheikh Mouhamad Ahmad Lo kon insha allah ñu teewlu ko bu baax a baax ci dars bi nga xam ne moom la ñu indil mooy manhaju salaf fi l aqidati wal ibada wa suluk doxalinu salaf buñ ko waxee mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñamu àndaloon seen doxalin ci wàllu pas-pas ak ci wàllu jaamu borom bi subhanahu wa taala ak ci seen i wàllu jëflante ak dugalante ak naka ñoom la ñu dundee woon fal yatafaddal mashkura bismillah arrahmani arrahim in alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فهذا درس حول منهج السلف في العقيدة والعبادة والسلوك يدور حول تعريف المنهج تعريف السلف بيان منهج السلف في العقيدة بيان منهج السلف في العبادة بيان منهج السلف في السلوك mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu di jéggalu mbokk yi yi nga xam ne ñoo taxawal yitti ji ci fan yi mu di shababu al madina mbokk yi nga xam ne ñoo jóge madina dimbalante ak mbokk yi nga xam ne ñoo nekk fii ci xarakatul falaax ak mboolem mbokki jullit yi nga xam ne bokk nañ ci waroon nañoo teewe li weesu ci ay jataay lépp rawatina jataay ubbi ba waaye ngànt moo waraloon sunu ñàkk teew kon noo ngi leen di jégalu ci loolu di fas yéene dugg ci waxtaan wi nga xam ne lay xol ba insha allah moo di lu aju ci méthode bi nga xam ne asalafu saalix moom lañ jaare woon ci wàllu pas-pas ak ci wàllu jaamu yàlla ak ci wàllu jikko ak nekkiin ñu séddale waxtaan bi ay tomb yu néew ba ci jiitu mooy xam lan lañ jublu ci méthode bi ñuy wax ak ñaareel ba ñan ñooy salaf ñetteel ba lan mooy seen metod ci aqida ñeenteel ba lan mooy seen méthode ci wàllu jaamu yàlla juróomeel ba lan mooy seen méthode ci wàllu jikko ak nekkin muy li ñuy wax suloog kon nu daal di dugg rek ca tomb ba ci jëkk al manhaj wal minhaj fi lluga al tariq al waadix wa minhu qawluhu taala li kullin jacalna minkum shircatan wa minhaja ay tariqan waadixan sahlan dañuy wax ne buñ ne manhaj mooy li tolloog li naan méthode mooy aw yoon wu yaatu woo xam ne wu leer la suñ borom tabaraka wa taala dafa wax ne kenn ku ne ci yonent yi defal na la aw ngir moo xam ne ngir mu leer naññi la di aw yoon woo xam ne wu leer la kon buñ ne mën xëj liñ ci jublu mooy aw yoon wala aw doxiin ca kaw yoon wa liñ jublu dëgg nag ci manhaju salaf mooy ab turuq والأساليب والخطوات التي انتهجها السلف في العقيدة والعبادة والسلوك وليس المقصود تفصيل ما يعتقدون بل كيف يعتقدون وعلى أي شيء بنوا عقيدتهم وعبادتهم وسلوكهم kon yoon yan ak doxin yan la asalafu saalix yoroon di ko doxe ci seen wàllu pas-pas ak ci seen wàllu jaamu yàlla ak ci seen wàllu jikko jubluwunoo détaillé lañ doon fas loolu yeneen jataay la am ndax yooyu jataayu jàng la am yoo xam ne yu yàgg yàgg la war a doon waaye danoo jubloo xam kenn ya nga xam ne ca lañ doon tabax seen pas-pas ak seenu jaamu yàlla ak seen jikko ba tax ñu gën képp ko mën a doon ku dul ku dul ñoom loolu nag xam ko lu am solo la ndax ya koy wone yay wone am solo ga moo di xam ñoom seen manhaj e, aw yoon wu gaaw la mooy yoon wi gën a gaaw ci nit ki am li ñuy tudde fiq ci diine mooy xam diine kon tariqun saria li tafaqquh fi diin parce que dañuy wax ne lépp loo xam ne xam nga ay cosaanam ak fan lañ jaar ba fos ko ba tër ko xam détails yay nekk ci biir day daal di yomb ñaareel ba moo di it xam seenu doxin dafay fekk nit ki ci jàng daf koy fekk ci réer daf koy musal ci bidaa ci diine kon xam seenu doxin lu am solo ba tey it ginnaaw nga xam ne roy leen mooy tax nit ki mën a tabax jëmbam ba mën a am benn personnalité ci lislaam boo xam ne bu yam lay doon du ëpp du yées roy leen day indi loolu kon xam nan lañ doon doxe lu am solo la ndax ku xamul nuñ doon doxe doo leen mën a roy kon yooyu yëpp daf nuy won am solo boo xam ne xam seen manhaj am na ko solo eh, bu dee lu aju ci taarif salaf muy définir salaf mooy ñan buñ nee salaf rek ci waxu arab asalafu humul jamaa al mutaqaddimun mépp mbooloo moo xam ne mu jiitu la mu jàll rek mën nañ leen a tudde asalaf waaye liñ ci jublu nag fii mooy asalafu saalih maanaam salaf ñi nga xam ne ñooy ñu baax ña ñooñu ñooy ñan al a'immatu al mutaqaddimun min ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa taabiina lahum bi ihsan الذين أخذوا عنهم الدين وبلغوه قولا وعملا mag ñu baax ña kilifa yu kawe ya daraja ña nga xam ne ñooy saxaaba yi yonent ba sallallahu sallam ak ña nga xam ne ñoo leen doon topp di leen roy jële ci ñoom diine jottali ko ci seen wax ak ci seen jëf ak mboolem ñépp ñoo xam ne topp nañ leen aw ci seenu ngir di xeñtu seen mboor di dox seenu doxiin ñooñu la jubli ci asalafu saalix ñooñu nag ñooy ahlul quruni al ñooy ñi nga xam ne ñoo ñooy waa siècle yi nga xam ne mooy yëgën ya sun borom tabaraka wa taala gënal ña mu tagg wax ne alsaabiquuna al awaluna min almuhaajirina wal ansar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 walladina tabacuhum bi ixsaan kon mu ne ñooñu ñëpp suñu borom tabaraka wa gërëm na leen ndax ñoom ñoo gërëm yàlla dañ ko gërëm loo buur mu gërëm leen moom itam mu ne nag ma nga leen di xaaroo àjjana joo xam ne ju dex ya di daw ci suufam la tey dañ koy sax ba faw borom bi mu ne loolu de mooy texe ku màgg ga ñooñu ñooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel ne ñoo gën ku ñoom mu ne xayru nnaasi qarni summa alladina yalownahum summa alladina yalownahum muy xadis boo xam ne buxaari muslim ñoo ko génne ñi gën ci nit ñi mooy sama siècle bi ma doon dund ñee ca tegu tegu ca ñee ca tegu tegu ca ñooñu mooy ñi yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ne mujj mi ngi am ci roy leen ñooñu kon ñooy saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ci jiitu keneen ku ci tegu ku mën a doon door cee tegu moo tax ci xadis bi mu doon waxee ne xeet wi dana tàqalikoo nangami kuréel dafa wax ne yépp sawara la danañ dem sawara ba mu des benn biñ ko laajee boobu ban la daf ne man kaana ala misli ma ana alayhi al yawma wa ashaabi kon melokaan la mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci lii ma nekk tey maag samay saxaaba mu ne ñooñu ñooy ñu mucc Eh, kon ñooñu ñooy asalafu saalix kuy askanoo ci ñoom nag dañ koy tudde salafi buñ askanee nit koo xam ne dafa jaar ci seenum ngir di góorgóorlu ci seenu yoon kooku salafi lañ koy tudde moo tax alxaafis aldahabi bi muy tarjamaal al imaamu dara qutni moom mu nga xam ne mu ngi faatu ci atum ñetti téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom bi mu koy tarjamaal di nettali ak dundam ci téereem bi ñuy wax siyaru alaami nubala bokk na ci lam fa wax mu ne lam yadxuli rajul fi ilmi alkalaam wala aljidaal wala xaada fi dalik bal kaana salafiyan mu ne alimaamu daara qutni nee na duggul woon ci li ñu tuddee ilmul kalaam muy luñ jële ci falsafa ak ay xulóoki werante nee na duggul ca biir yooya li am kay mooy nee na dafa nekkoon salafi mooy al imam addaara qutni li ci jublu mooy koo xam ne dafa topp saxaaba yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay na kon ñooñu buñ nee assalaf ñooñu lañ ci jublu muy assalafu saalix e, seen manhaj nag ci wàllu aqida liñ jublu ci aqida kon mooy seen pas-pas ñoom ba nga xam ne ca lañ nekkoon buñ leen xamlee ku xam seen pas-pas da ko daal di xam ku ko xamul it da ngay yëg ne eh, seen pas-pas mooy pas-pasu alquran ak sunna comme ni ma ko waxee détaillé lañ doon fas du ci jataay bii waaye fan lañ jaar ba fas ko loolu mooy li waral jataay bi seen yi nga xam ne ca lañ sukkandiku nag ba fas liñ fas muy seeni qawaid yi nga xam ne mooy qawaidu manhaju salaf bokk na ci yi may tudd ñoom bokk na ci yiñ gisoon moo di taxkimu alkitaabi wa sunnati alsaxixa fi kulli qadiyatin min qadaaya alaqida bépp masala ci biir aqida bu mu mën a doon ngir ñu saxal ko ci la ñuy sukkandiku mooy alquranul karim wala sunna soo xam ne su sax la maanaam sunna su wér daawuñu jël alquran di ko fénqaleeg seeni xalaati bopp di ko féeraleeg seeni xalaat ngir yëkkati seeni xalaat kaweel ko suufeel alquran wala suufeel sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon lu aju ci xalaat ñoom am na place buñ ko joxoon boo xam ne bokkul ak féewalikook alquran waaye dañ daan dimbanikoo xel ngir dégg alquran ak dégg sunna moo tax borom bi tabaraka wa di wax يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا su fekkee ne gëm ngeen yéen ñi nga xam ne yéen a gëm topp leen yàlla topp ab yonentam topp seeni kilifa ñii ne buur yaa ñii ne borom xam-xam yaa waaye la wér mooy borom xam-xam yaa bu fekkee ne wala buur ya nga xam ne dañoo jaar ca la borom xam la xam-xam joxe su fekke ne yéen a ngi xëccoo nag ngeen di xuloo ci dara na ngeen ko delloo ci alquran ak sunna loolu mooy li gën ku ñu wax maymun ibnu mahran mu ne fa in tanazaatum fi cheyin fa rudduhu ila allah qaal ila kitaabillah wa ila rasulihi ma daama xayan fa ila sunnati maymun ibnu mahran rahimahullah mu ne loolu mooy lan su ngeen juuyoo ngeen delloo ko ci alquran wala ngeen delloo ko ci yonent ba sallallahu alayhi su fekkee ma ngay dund su fekkee dundatul nag ngeen dellu ca sunna yonent ba sallallahu alayhi wa sallam kon daal ñoom tomb ba jiitu moo di taxkimul kitaabi wa sunnati saxiixa fi kulli qadiyatin min qadaya al aqida ba ca tegu te it loolu li koy fedd li sax mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ko gën a joxe daf ne taraktu lan amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaab allahi wa sunnata nabiyihi kitaab allahi wa sunnata nabiyihi noonu la ko al imam malik solo ci muwatta muy xadis boo xam ne bokk na ci ñi ko dëgëral wéral ko cheikh nasirul albani ci silsila saxi kon xadis bu dëgër la eh, mu ne bàyyi naa leen yaari yëf yoo xam ne du ngeen réer li fekk jàpp ngeen ci loolu mooy alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa kon tomb ba ci sës mooy ar rujuu ila fahmi salafi saalih mënee sa dégg li alquran ak sunna di wax ci wàllu aqida faw ñu dellu ci ne ko saxaaba yi déggee woon li annahum axaqu nnaasi bi maarifati muraadillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ñoo gën a yeyoo ñépp xam li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ñoo doon dund jamono yi nga xam ne alquran a ngi wàcc ñoo taqoo woon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci këram ak ci tukkeem ñoo xam ay waxam ñoo xam ay jëfam ñoo xam ay mbiram te ñooy ña nga xam ne lañ daan rawantee mooy diw moo dàqaro yu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñooña seenu dégg dégg gu yeyoo bala nga amuk dégg ci alquran ak sunna nga dellu ca ñoom seet leen ba xam ñoom lii nuñ ko déggee woon ba tegu moo di tarkul xawdi wa taamuq fi lmasail alictiqadiya wa xaasatan fi baabi alqadar walgayb mimma la majaala lilaqli fiihi kon bañ a xóotal sa mbir ba mu ëpp ci masala yoo xam ne dafa aju ci wàllu aqida rawatina buntub li ñuy wax alqadaa wal qadar muy dogalu yàlla walla lu aju ci xam-xamu xayb loo xam ne dafa nëbbu te ñëwagul wala mu weesu te kenn waxula ko lépp loo xam ne xel munu koo bët ba xam ko ci lu dul dafa jaare ci lu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala muy waxyu nee na foofu ñoom la doon seenu doxalin foofu mooy tarkul xawdi wa taamuq fiha daawuñu ca xóot daawuñu ca xuloo daawuñu ca werante kon loolu lu mënta ñàkk la tomb ba ca tegu mooy aljamu bayna atraaf al adilla qabla taqriri ay xukmin aw masalatin ictiqaadiya buñ daan jëfandikoo bépp masala bu mu mën a doon ci masaili aqida dañ daan boole li nga xam ne moo rot ci alquran ak sunna boole lépp xool ko waaye duñ jël rek benn masala daal di ciy jële aqida su ko defee buñ demee ba mu yàgg mën nañoo gis benn masala boo xam ne eh, la muy nuru ca kaw mooy day mel ni dafa juyoo ak la nga jëloon yow su ko defee mën ngaa fas loo xam ne defe nga ne noonu la te fekk njuum te dugg na ci loolu moo tax mazhabu salaf daanaka foo xoolee gis ay juyoo am ci diggante ngir yi da ngay gis ne mooy doxaliin wa nga xam ne moo gën a dëppoo ak alquran ak sunna loolu bokk na ci la leen ko may bokk na ci la ko may mu di bañ jël lenn ci alquran bàyyi la ca des wala jël lenn ci sunna bàyyi la ca des moo tax bu ci defoon benn misaal rek xool li ñuy wax ci laay yi nga xam ne dafa rot ci li ñu tudde al waad muy yi borom tabaraka wa taala dig ña nga xam ne dañoo baax li leen yowmal qiyaam nangam ak nangam laa leen xaaroo ajjana jaa ngi nangam a ngi nii wax leen yu neex a neex loolu ay texte yu bari la am ci alquran ak sunna boo xoolee wet ga ca des da nga gis li ñuy tuddee alwaid alwaid muy tëkku yi nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa taala tëkku ña dëng di leen wax ni li leen fay xaar mooy sawara mooy nangam mooy nangam yépp yoo xam ne yépp yu metti la e, boo xoolee foofu dangay gis ni ñoom boole guñ boole texte yi rot ci lay diggalu neex ak texte ya rot ci lay tëkkoo ci lu naqari boole gañ ko boole tax na seenum ngir jub foofu boo xoolee nag ñi nga xam ne ñoo tàbbi ci biddaa muy lu mel ne xawaari ji ñoom dañoo xool texte yi nga xam ne dañuy tëkkoo bàyyiwuñ xel texte yi nga xam ne ñooy dige lu baax ñu sukkandiku ci loolu ne képp koo xam ne kon def nga bàkkaar bu mag génn nga lislaam ku def bàkkaar bu mag génn nga lislaam ndax dañoo notal tëkku nekk noonu kuréel ba ñuy wax la itam eh, génn nañ leen ci gëm yàlla bokk ak xawaari ji atte ne ku def bàkkaar bu mag itam boo tuubul ba faat sawara nga jëm te da nga fay sax itam ba faw kuréel ba ñu tudde a ñëw ci safaan ba nga xam ne ñoom dañoo notal dañoo notal genn wet gi nga xam ne day diggalu neex biñ xoolee yi nga xam ne day wax ko wax laa ilaha illallah dugg àjjana xool yi xool yi ñu ne kàccoor yi ak wàllu yooyu yépp ak malaaka ya ñoo bokk daraja ci wàllu ngëm yàlla ñu ne ñoom ñépp ñoo bokk jenn daraja ci àdduna ak àllaaxira na kon ñooñu dañoo xool ñoom it genn wet ndaxte dañoo xool texte yi nga xam ne rek day digge lu neex ñu ne kon ñii ñépp lu neex la ñuy am yowmal qiyaam daal di neenal texte yi nga xam ne day tëkku képp koo xam ne dafa def lu bon kon ñaari kuréel a ngoogu yu jàkkaarloo yoo xam ne ñenn ñu ci nekk safaanub la seen moroom fas loolu lañ fas amma salafu saalix ñoom biñ dikkee nag jàmm bay bayna nusuus ñi boole texte yi nga xam ne dañuy xuppe di lu metti ci ku dëng ak texte yi nga xam ne dañuy lu neex ci ku jub biñ boole yooyu yëpp xool ko ñu ne ah ku def bàkkaar bu mag de def nga lu rëy yeyoo nga it mbugal waaye nag sa ngëma nga fa waaye nag sa ngëm nga fa su fekkee ñu nag ba faatu yeyoo nañ mbugal su neexee suñ borom tabaraka wa taala mu mbugal leen kon atteeluñ leen ne seen ngëm mat na ba mel ne malaayika ya ak walla yu ya waaye it attewuñ ne sawara lañ jëm ci ñi nga xam ne dañoo def lu lu bon kon ñoom ñoo yem ci digg bi ñu ne kon ahlul kabair muy ñi nga xam ne dañoo def bakaar bu mag te ñu ngi wax laa ilaha illallah ñu ngi jublu qibla di julli ñooñu ay jullit lañ yeyoo nañ nag mbugal su fekkee faatu nañ te ñu bakkaar yu mag yooyu waaye nag bu soobee suñ borom tabaraka wa taala mën na leen a dugal àjjana fa saasa bu ko soobee mu dugal leen sawara mbugal leen la ko neex génne leen ci dugal leen àjjana wala ci ramu way ramm ya mu génne leen na dugal génne leen sawara dugal leen àjjana ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne yaxruju min naar man kaana fi qalbihi misqaalu xabatin min xardalin min imaan képp koo xam ne si daraa ngi ci sa xol ci ngëm yàlla bu duggee sawara itam bés dana ñëw mu génn sawara dugg àjjana kon boole diggante texte yi ci boppam ci biir buntu pas-pas lu munta ñàkk la munta ñàkk sax ci bunt bu mu mën a doon ci bunt diine muy fekk muy leneen waaye ci bunt pas-pas daf cee gën a rëy ndax day daal di dugal nit ki ci ak jàng gu méttee métti ci wàllu pos-pos da dul tuuti kon loolu moo tax mu gën a rëy bokk na ci ba tey ci seen manhaj qawaayid yi ñu jëfandikoo muy seen régal al amal ala mulazamati jamaati almuslimin wa tarku mufaraqatihim xirsan ala waxdatihim dañ daan def lépp ngir takkoo ak ñi nga xam ne ñooy mbooloom jullit yi bañ a ko ngir xir ci seenu nekk benn waaye nag bennoo goo xam ne dañ koy teg ci kaw la wér bennoo goo xam ne dañ koy teg ci la wér borom bi tabaraka wa taala moo wax ne yaa ayuha alladina amanu taqullaha xaqa tuqaatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu gannaaw bu ngeen ragale suñu borom tabaraka wa taala nam yeyoo ku ko ragale mu ne bu leen faatu mukk te nekku leen ay jullit waaye nag na ngeen jàpp ci buum suñu borom tabaraka wa taala gi nga xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen tàqalikoo buum gi nga xam ne su ngeen ci jàppee du ngeen ci tàqalikoo mooy alquran alkarim ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax wa anna hada sirati mustaqiman fattabicuuhu wala tattabicu subula fatafaraqa bikum an sabilih mu ne na ngeen topp yoon waa ngi nii yoon wa mi ngi nii jub xocc muy alquran ak sunna na ngeen ko topp waaye bu leen topp ñal yi ndax ñall yooyu ñoo leen di taqale kon fa nga xam ne daal mooy foo xam ne su fa jullit di delsee seenu bennoo dana mën a am dana wér kon mooy jàpp ci buumuk alquran ak sunna looloo leen di bennale moo leen di jox doole leneen lu dul lool da leen dul mën a sax bennale beneen géew boo dem bu mu mën a doon bu dul alquran sunna doonut boo xam ne buy bennale jullit yi la daf leen di taqale jëlee na ci abu hurayra mu jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne inna allaha yarda lakum salaasan wa yakrahu lakum salaasan fa yarda lakum an taabuduhu wala tushriku bihi shay'a wa an taatasimu billahi jami'an wala tafarraqu wa an tunasixu man wallahu lahu alaykum mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ne yàlla bëgg na ci yéen yett bañ na ci yéen itam yett yëf mu tudd ci yi nga xam ne bëgg na ko ci noonu mu ne mooy ngeen bennoo jàpp ci buumuk suñu borom tabaraka wa taala bañ a bañ a tàqalikoo yareen yam bëggee ca des mooy nga euh, jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak dara te itam képp koo xam ne féete na la kaw ci wàllu kilifa yit bu mu tee nga di ko laa biire bu mu tee nga di ko laa biire yim bañ ci yéen mooy li ñu tuddee xiila waxaal foo toll rek yaa ngi werante nee nañu lii kii ne nee nañ lii kii ne nee lii na ngeen ko wattandiku ak bàyyi laaj laaj boo xam ne du doon laaj booy jëriñoo ci wàllu xam-xam wa idaatul maal ak sàkk sànq alal ci lu dul yoon woo xam ne bu dagan la <coughs> bokk na ci seeni tomb muy seeni régal yi nga xam ne danañ ko jëfandikoo ci seen wàllu pas-pas isbaatu ma asbatahu lwaxyu fi baabi sifaat ala ma yaliqu billahi bila taxrifin wala tawilin wala taatilin wala tamthil lépp loo xam ne sax na ci alquran wala mu sax ci sunna ci melokaan yi sunu borom tabaraka wa taala ahlu sunna wal jamaa bokk na ci seen manhaj ne lépp loo xam ne sax na ci alquran ak sunna dañ koy saxal na mu dikkee ci lu dul ñuy soxla woo di ko jiima firi meneen firi moo xam ne day tegtale lu bokkut ak la muy tegtale wala ñu di ko neenal wala ñuy nuróole borom bi tabaraka wa taala ak kenn moo tax borom xam-xam bu mag day wax ne fa innahu la aclamu billahi min allah wala yasifu allaha bacda allahi aclamu billahi min rasulillah kenn munta melal yàlla ku gën a xam yàlla ci boppam kon bu waxee ci alxuraan ne nangam ci samay melokaan la bokk kon bu la dara tax nga ji ma soppi lool ndax yàlla la gën a xam boppam wala gën a xam lu mu yeyoo gannaaw bu alxuraan jàlle kenn kuy melal yàlla ku gën a xam yàlla yonentub yàlla yonent bi yàlla moo gën a xam ñëpp keneen ku dul yàlla kon lépp loo xam ne sax na ci alquran wala mu sax ci sunna ci melokaan yi suñu borom tabaraka wa taala bul jii ma dawtal sam xel naan su ma nee nii la yàlla mel dana nuroog leneen wala dana nuroog laa ndax yow xamoonu yàlla mel daf laa wax ne nii la mel jox la aw tur wala mu jox la aw melokaan ne la ci ay melokaanam la bokk la la war mooy saxal ko saxal goo xam ne dana dëppoo akuk màggaayam moom sun borom tabaraka wa taala ci lu dul ngay jiima xam nag détaillé ak nan la dëgg-dëgg melokaan mel ndax xamoo jëmm jënum mel bokk na ce seeni tomb ba tey adamu tafriqi bayn al mutawatiri wal ahad fi isbaati al aqida dafa am xadis yoo xam ne dañ koy tudde xadisul ahad ak xadis yu ñuy tu tudde mutawatir xadisul ahad mooy bépp xadis bu nekkul mutawatir bu mën a doon boo xam ne mbooloo mu bare bare bare bari attanuñ jële àndandoowuñ jële ko ci yonente ba salallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xam ne ña ko jële ci yonente ba daal di ko nettali ba mu agsi fa nun doonut am mbooloo mu baree baree baree bari ba jéggi dayoo loolu la ñu loolu la ñu tudde ahad bu fekkee nag mbooloo mu baree baree bari àndandoo jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku moom la ñuy tuddee moom la ñuy tuddee mutawaatir dafa am nag ay kuréel yoo xam ne dañu ne ñoom pas-pas duñ ko jëlee ci lu dul xadiisu mutawaatir su fekkee dafa nekk ahad duñ ko jëfandikoo ci wàllu aqida waaye loolu lu juyoog ngërum doxalinu salaf la saalix al imam ahmad ibnu hanbal ci téeréem bi ñuy wax radd ala zanadiqa wal jahmiya lu bare bari ci xadis ahad sukkandikoo na ci ngir saxal pas-pas bokk na ci yooya liñ saxal na jullit yi ci àjjana buñ fa duggee dañuy gis sun borom tabaraka wa taala kooku ci xadisu ahad ci la sax xadisu ahad xadis bu wér la kon eh, loolu moo doon doxalinu salaf ba tey al imaamu Shafii ci téereem bi ñuy wax ar risala eh, def na benn fasl boo ko boo xam ne mi ngi ko tudde al xujja fi tasbiti xabaril waaxid muy saxal loo xam ne dafa jëm ci xabar bi ñu tudde aaxaad tudd fa nag ay tegtali yu bare bare bari yoo xam ne ci alquran ak sunna la jógee mu ci wax ne loolu des na ko jëfandikoo tey nag yooye mu indi muy ay adilla day làmboo pas-pas di làmboo atte yeneen yoo xam ne bokkul ak pas-pas képp koo xam ne nag du jël li ñu tudde xadisul ahad ci wàllu pas-pas loolu yóbbee na leen ba ñu weddi lu bare bare bari ci pas-pas yoo xam ne dañoo sax pas yooyu danaa ci joxe ay misaal ñenn ñi dañ ko weddi wax ko bu wér a wér ñi ci des dañ koo daf leen a war ñu weddi ko ndax ginnaaw duñ ko jëfandikoo te ci xadisu ahad la saxe Euh, kon kooku ñoom dañ ko gëma bokk na ci yonent gi aadama alayhi salaam nekk yonent bokk na ci gën gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gën yonent yi ci des yépp loolu lépp ci xadisu axaat la sax bokk na ci ram gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa may ne ko bi sallallahu alayhi wa sallam mu di ko ramm ñu tudde ko ashafaatul uzma bokk na ci mojisaati yonent bi muy kéemaan yi yàlla amal ci jamonoom ak ci loxoom dañoo wedd yépp ba mu des alquranul karim bokk na ci yooyu xadis yi nga xam ne yépp dañuy waxtaan ci eh, na sun borom tabaraka wa binde doomu aadama ak ni nga xam ne mooy melokaanu malaayika yi ak ginne yi ak àjjana ak sawara ci ne dañ leen a bind te itam ñu am lañ fii nu toll loolu lépp weddi nañ ko li leen li ñu weddi ci seen wàllu pas-pas ngir ne saxul ci xadis mutawaatir moo di dogu ci ne ñi ñi tudde al asharatu mubashirin bil janna fukki yi nga xam ne dañ leen a bégal ci àjjana muy fukki saxaaba yoo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa na leen tudd ci benn xadis ni ñii ña nga àjjana ñooñu gëmuñu loolu ndax dañ ne nekkul ci xadis mutawaatir <coughs> gëmuñu ba tey e, laaj bi nga xam ne malaaka mi ñu tudde munkar ak nakiir képp ku faatu danañ la yëkkati sa bàmmeel laaj la ci ñoo ñu gëmuñu loolu ndax dañ ne saxut ci xadis mutawaatir neke noonu mbugalum bàmmeel neke noonu balance bi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala dana ko indi ñi peese ci jëfi kenn ku nekk bokk na ci li ñu tudde siraat ak yëggi ko bokk na ci déegu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xam ne képp ku ca naan duutoo mar ba faw yàlla nañ ci yàlla bool ñu naan ñu naan ca nun ñëpp eh, bokk na ci dugg goo xam ne juróom-ñaar fukki junni danañ ko dugg ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam danañ ko dugg àjjana ci lu dul xisaab loolu lépp wedd nañ ko gëm gi nga xam ne dañ koo gëm xalima gi nga xam ne moo bind lépp lu mën a doon ak aras ak kursi gëm ko mu nekk xaqiqa boo xam ne du majaas du dara loolu weddi nañ ko lu bari ci li nga xam ne moom lañuy ñu tudde mandarga yi am lu jiitu àdduna di tukki ñu tudde ko ashratu saa muy xuróoju ki ñu tudde mahdi ak génn gi mu war a génn ak wàcc gi isa alayhi salaam war a wàcc ak génn gi dajjal di war a génn yooyu yépp ku gëmul xadisu ahad weddi nga ko miraaju yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy gannaaw boo xamee ne def na isra ba wàcc baytul maqdis yëkkati ga ko sun borom tabaraka wa taala yëkkati ci buraaq al buraaq mu xotti asamaan yépp ba àgg fa mën a yem ak gis ci kéemaan yi sun borom tabaraka wa taala yu mage min ayaati rabbihi al kubra mu gis yu bare bari foofa ñu wedd nañ miraaj googu muy yëkkati ga ko sun borom tabaraka wa yëkkati mu jëm ci kaw asamaan kon ñàkk a gëm xadisu ahad ci wàllu pas-pas daanaka ku ko def sa pas-pas moom day jeex te lii misaal laa joxe waaye la ñuy weddi dana ëpp loolu bokk na ci seeni reegal ba tey ci manhaju salaf ci wàllu pas-pas moo di a talaffuz bi shahadatayni illa min uzrin kal xaras moo di war na ci kenn ku nekk mu tudd ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan mu nekk jullit kooku lu war la ci seen manhaj la bokk lu dul nag koo xam ne dafa am ngànt comme koo xam ne ku munta wax la moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam dafa eh, dafa wax ne umirtu an uqaatila annaasa xatta yaqulu la ilaha illa allah wa anni rasulullah digal nañ ma ma xeex nit ñi ba ba ñuy wax ba ñuy wax la ilaha illa allah muhammad rasulullah kon kooku ponk la bu munta ñàkk ci seen doxalin ci wàllu pas-pas eh, ba tey bokk na ca moo di ne tudd ñaari shahada yooyu képp doyul mujarad nutq bi shahadatayn la yakfi bal la budda min shurutin yajibu taxqiquha ma nutq li yantafia biha qailuha bokk na ci yooyu ne faww ki nga xam ne dafa wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah loolu wax gi rek doyul faww mu am yeneen yum ca teg yoo xam ne ay charte la yoo xam ne moom la ñuy tudde muqtada la ilaha illa allah faww mu def ko loolu door koo jëriñ loolu la boroom sullamul wusul e, tudd ci ay bayit mu wax ne wa bi shurutin sabaatin qad kuyidat wa fi nusuusi lwaxyi xaqan waradat e, fa innahu lam yantafi qailuha bi nutqi illa xaytu yastakmiluha alilmu walyaqinu walqabulu walinqiyaadu fadri ma aqulu walsidqu walixlaasu walmahabba wafaqaka allahu lima ahabba amin kon sart yooyu ci ak gàttal ci lu dul nu di ko détaillé détaillé ko am njàng la njàng pas-pasu salaf ci la aju ay bokkul ak manhaj bi li nu soxlaal ci manhaj bi moo di xam ne tudd gi rek de doyut faaw sart yi dana ci dëppoo sart yooyu bokk na ca xam gi faaw nga xam luy laa ilaha illallah faaw nga am ci yaqiin yu àndut ak sikk sàkk faaw nga nangu ko te déclaré ko ba ñëpp xam ne nangu nga ko boo ko nangoo it nga wommatu ci sa jëf ba ñëpp xam ne sa jëf ji tegtale na yow bu bokk ci waa laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ci nga bokk eh, boole ko akuk dëggu akuk sellal ak loolu lépp na boole ko akuk mbëggeel bu wér kon lii ma joxe nii lenn la ci ay ponk yu lay won dara ci manhaj bi nga xam ne asalafu saalex ci lañ doon tabax seen wàllu pas-pas eh, bu dee ci wàllu tomb ba ca sës nag muy bayaanu manhaj salaf fil ibada al ibada dafa am eh, ay jubluwaay yoo xam ne ñi koy faral di tudd dañ ko ci jublu lan mooy al ibada lan lañ ci jublu dafa am ibada goo xam ne ibada amma la goo xam ne buñ nee jaamu gi rek xam nga ne ak jaamu mooy ak mokk buñ ne tariqun muabbad mooy yoon woo xam ne dañ koo mokkal defar ko ba boo ci jaaree doo sonn buñ nee ibaada kon dafa am ibaada amma moom la ñu tuddee ibadatu alqahri wal mulk allati tashmalu ahla alsamawati wal ard kullahum muminahum wa kafirahum maanaam am na jaamu goo xam ne ak mokk fa kanam suñ borom tabaraka wa taala goo xam ne ñépp a ko mokk fa kanamam moo xam ku baax la wala ku bon moo xam jullit la wala yéefar moo xam lu am xel la wala lu amul sax xel ñoom ñépp abidun marbubuuna lillah ay jaam lañ fa kanam sunu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne in kullu man fi samawati wal ardi illa aati arrahmani abda ñoom ñëpp kenn ku ci nekk jaam nga fa fa kanam sunu borom tabaraka wa taala kooku mooy al ibada al amma al qahriya am beneen ibada bu ñu tuddee al ibada al xaasa al sharciya geneen jaamu goo xam ne dafa nekk dafa <clears throat> nekk spécialité ci wàllu sharia ci la jëm mooy wàllu topp ak toroxlu ak mokk ànd akuk mbëggeel akuk tànneef boo xam ne yow yaa ko tànn kon googu jaamu yàlla mooy jaamu yàlla gi nga xam ne moom lan jublu fii e, am na geneen jaamu goo xam ne ibaadaat ci lenn ci jëfandikukaayu fuqahaaw yi ci seen istilaax mu ñi nga xam ne dañuy bind ci wàllu fiq dafa am benn partie boo xam ne dañ ko tudde al ibaadaat ñi di ci jublu lu mel ne julleeg asakaak koor ak aj su ko defee bu ñu séddalee téere ba ñetti xaaj dañ naan aqaid tudd ci lu aju ci wàllu pas-pas ne ibadat tudd ci lu mel ne jullee koor ak laab ak yu mel noonu ne muamalaat tudd ci lu aju ci wàllu njaay ak yu mel noonu kon foofu danañ ko tudde itam ibada waaye nag ñay def loolu it jublu wuñ ne jublu wuñ ne yeneen yi ci des du ay jaamu yàlla kon jaamu yàlla rek aju wut ci julli ak koor ak yu demee ne moom waaye làmboo na leneen lu dul moom leen yi sax ci biir jaamu yàlla yi ci la dugg njaay meeg njënd meeg liggéey bi ngay xëy di liggéey ak loolu lépp fekkee ne nit ki teg na ko ni ko sharia tëddee di ci def xaqi sharia kon kooku ci biir ak jaamu yàlla ci la nekk moo tax borom bi tabaraka wa wax ne qul inna salaati wa nusuki wa maxyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika la sama julleeg samay tabaski yamay rendi rek eh, yama yàlla rendiloo ma di ko rendiloo rendi yépp ak sax faf sama dund ak sama dee lépp lu ci aju ci sama kurkur lépp suñ borom tabaraka wa taala ko moom kon jaamu yàlla mbir mu yaatu la moo xam ne bu ñu ko waxee làmboo na lépp loo xam ne nit ki daf koy def su fekkee jublu na ci suñu borom tabaraka wa taala ak jaamu yàlla lay doon su fekkee jaamu yàlla gis suñu borom yeyoo moom donc ma ngi koy def di ko jëmale ci kudul yàlla loolu moom la ñu tuddee bokkaale mu daal di nekk shirk Euh, ci borom xam-xam yi euh, xamle gi nga xam ne moo gën a yaatu ci xam xamlee jaamu yàlla dañuy wax ne ismun jaamiun li kulli ma yuhibbuhu llah wa yarda aw la woo xam ne day dajale lépp lu suñu borom tabaraka wa taala bëgg te gërëm loo ko min al aqwali wal amal al zahirati wal batina muy ay moo xam ci wax la wala ci jëf moo xam lu nëbb wala lu feeñ kon jaamu yàlla làmboo na làmboo na lépp kon lu nëbb ak lu feeñ kon léegi ñu joxe lenn ci ay misaal ci doxaliinu asalafu saalix ci wàllu wàllu ibaada lan mooy seen mën xëj ci wàllu ibaada euh, danaa tudd lenn ci ay régal yoo xam ne daf lay jox yu gàtt ci nga xam jaamu yàlla fan lañ ko tegoon ak nan lañ ko déggee woon ñoom euh, bokk na ci moo di al ibada la takunu illa lillahi azza wa jal jaamu ci boppam yàlla dong dong lañ koy def moom rek moo ko yeyoo keneen ku yàlla ku mën a doon jaamu yàlla nga waaye doo koo xam ne jaamu yàlla yi dañ lay jaamu loolu moo tax yonent yi yonent yi ci seen woote lañu doon tàmbalee di ci woote moo di woo nit ñi ngir ñu xam ne yàlla dong dong moo yeyoo jaamu yàlla buñ xooloon ak xool gu gaaw yonent yi ci seeni i woote danañ gis nuux alayhi salaam borom bi tabaraka wa taala mu ne wa laqad arsalna nuuxan ila qawmihi inni lakum nadirun mubin alla taabudu illa allah inni axaafu aleykum adaba yawmin azim mu ne yónni nañ ko ci aw nitam moom nuux mu ne aw nitam a ah, nun de noo leen di xub noo ngi leen di wax ne njàqare lu rëy day mën naa tege ci seen kaw ak mbugal mu mag a mag su fekkee ne jamu ngeen kenn ku dul yàlla bi aad ñëwee mu ne borom bi ne wadkur axa aadin id andara qawmahu bil axqaaf wa qad xalat innuduru min bayni yadayhi wa min xalfih allaa taabudu illa allah inni axaafu aleykum adaba yawmin azim mu ne bi mu dikkee ca aw nitam moom it la noox waxoon rek la leen waxoon la leen daal di waxaat maa ngi leen di xub wattu leen a jaamu lenn lu dul yàlla su ngeen ko defee di maa ngi ragal mbugal mu mag a mag a mag wàcc seen kaw Ibrahim yàlla ne wa id qaala ibrahimu rabbi ijcal hada albalada aminan wajnubni wa baniya an naabud al asnaam yàlla ibrahim mooy ñaan yàlla na nga def dëkk bii màkk la ci jublu muy dëkk bu am kóolute dëkk bu dal bu am sécurité te nga fexe ba dox sama diggante maag samay doom nu jaamu ay xiram maanaam nu jaamu leen lu dul yàlla almasih alayhi salaam wa isa wax na ne maa qultu lahum illa ma amartani bihi an yacbudu allaha rabbi wa rabbakum mu ne ko yow yàlla sama nit ñi nga ma yónni woon digaluma leen waxuma leen lu dul li nga ma digal moo di jaamu leen yàlla sama borom ak seen borom mooy sama borom ak seen borom waaye man du ma borom kenn du ma yàlla bu ñëwee ci ki nga xam ne mooy xaatabul anbiya nag muy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam danañ gis ne ab wooteem loolu la feese del del del ci woote ci gëm borom bi tabaraka wa ak jaamu ko moom dong bañ koo boole ak leneen lu dul moom buñ xoolee danañ gis kul yu baree bare bari yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koy wax kul waxal nàngam kooku daf koy digal mu déclarer pas-pasam bañ koo nëbb kon kooku danañ fi jariñu ci ne li nga xam ne mooy manhaju salaf manhaju ahlu sunna wal jamaa dafa war a feeñ warta doon loo xam ne dañ koy nëbb wala ñu di ko xóomtoo ci ay koñ waaye dafa war a siiw moo tax da ngay gis borom bi tabaraka wa taala di ko wax xul xul te it loolu kat loolu mooy méthode bi nga xam ne mooy jaar ci siraatul mustaqim waaye du caagi ni day li nenn nit ñi defe ne mooy xikma muy koo gis ku ne fexe ba jàpp ne yow da ngay jubóog ku nekk rek fexe ba jubóog moom boo fa jógee dem ñeneen fexe ba jubóog ñoom dem ci ñeneen fexe ba jubóog ñoom bu ñu waxee ñu ne diw ku am la parce que amul ay noonu déedéet loolu du noonu xikma mooy mbir ma leer ñi xam fa nga féete nga féete fa yow bëggit nit ñi xam ne fa nga féete moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam lu mu ko yàlla jëkk a wax kul ya ahlal kitaabi taalaw ila kalimatin sawain baynana wa baynakum alla na'buda illa allah wala nushrika bihi shay'a wala yattaxida ba'duna ba'dan arbaban min duni illah fa in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun mu ne yéen ahlul kitaab kaay leen te booba dañoo bari jullit yaa néew mu ne leen kaay leen ci benn baat boo xam ne bu maandu la sama digganteeg yéen mooy nu bañ a jaamu kenn ku dul yàlla bañ a bokkaaleeg moom dara bañ a defante ay yàlla ci suñ biir mu ne loolu suñ ko nangoo baax na suñ ko nanguwul nag yéen fa qulu shahadu bi anna muslimun na ñépp yëg ne kon nun àndunoog yéen ci la ngeen nekk waaye ay jullit lañ kooku la ko wax dellu ne qul inni nuhiitu an abuda alladina tad'una min duni fa in tawallaw déedéet qul laa attabiu ahwaakum qad dalaltu idan wa ma ana min almuhtadin mu ne wax leen ne man dey dañu ma tere may jaamu lii ngeen di jaamu yéen te bokkul ak yàlla te it du ma mën a topp seen bànneex yi ngeen di topp de loolu su ma ko defoon man kon ku réer lay doon te du ma bokk ci ñuy gindiku kon ku gindiku warta topp warta topp ku réer waxaat ko ne qul inni nuhitu an abuda alladina tad'una min duni illahi lamma jaani albayinat lamma jaani albayinatu min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin wax leen ne man de dañ maa tere ma jaamu ñii ngeen di jaamu te duñu yàlla ngir firnde yu leer naññ ay bayinaat muy ay kéemaan yu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala yu leer naññ yoo xam ne dañ maa digal moom borom bi daf maa digal ma jox sama bop ki nga xam ne mooy borom bindeef yi waxaat ko ne ko qul ya ayuha nnaasu in kuntum fi shakkin min diini fala abudu alladina tacbuduuna min duni illah walakin abudu allah alladi yatawafaakum wa umirtu an akuna min almuminin yéen nit ñi su fekkee ne da ngeen a am sikki sàkk ci sama diine ñii naan lii la gëm ñee ne lii la gëm xam leen ne sama diine mooy du ma jaamu lii ngeen di jaamu yéen waaye kan lay jaamu mooy borom bi tabaraka wa taala ki nga xam ne su leen bëggee faat moo leen di faat ngeen faatu kon kooka lañu ma digal ma jaamu ko kooka te dañ ma digal ma bokk ci ñi gëm waxaat ne qul innama umirtu an abuda allah wala ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi maab waxal ne dañu ma digal ma jaamu yàlla dong bañ ko bokkaale ak dara ci loolu laay woote ci laay dellu itam waxaat ne qul inni umirtu an abuda allah muxlisan lahu diin waxal ne dañ ma digal ma jaamu yàlla boole ko ak sellal ko sellal diine ji waxaat ne qulillaha abudu muxlisan lahu diini waxal ne yàlla lay jaamu sellal ko <clears throat> waxaat qul afa gayra allahi taamuruunni abudu ayuha aljahiluun wax leen ba tey ne dangeen a defe ne damay jaamu kenn dangeen may digal may jaamu kenn ku dul yàlla yéen ñi nga xam ne dangeen a réer kon jaamu borom bi tabaraka wa taala képp moo ko yeyoo koo koy tomb bi njëkk tomb ba ca tegu moo di ne kullu man istakbara an ibadatillahi la budda an yaabuda gayra képp ku rëy rëylu ba bañ a jaamu yàlla da jaamu keneen kon faw nga jaamu keneen wala leneen benn muy nit wala muy alal wala muy ay bant yoo samp wala muy xërëm yoo gëm wala yu ñu lay rendiloo faw nga jaamu leneen lu dul yàlla soo jaamoo yàlla moom dong nga gëm ko noppalu ba tey alqalbu la yasluxu illa bi ibadati rabbi xol bi munta jag lu dul ci jaamu borom képp lépp luñ ko jiima réparé moom xolu doomu aadama lu dul jaamu yàlla ci fér lay dëkk li feeg demul bëggam yàlla dal gi mu yeyoo du ko am loolu beneen tomb la ci qawaidu salaf ba ca tegu mooy kamaalul maxluuq fi taxqiqi al ubudiyati lillah kamaalul maxluuq fi taxqiqi al ubudiyati lillah mbindeef mi ngir mu mat dëgg dëgg dëgg ak njaamam day mat ak njaamam ci yàlla lu mu gën a mat rek kooka day gën a nekk mbindeef mu mat moo tax borom bi tabaraka wa taala yonentam yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a fonk kenn ku ci nekk day wax ne diw sama jaam la diw sama jaam la ngir ñu xam ne kooku kon ku mat la kon matuk mbindeef ci matuk nam nangoo jaamu boromam foofa lay feeñe ku mel ne nuux alayhi salaam suñ del siwaatoon ci xoolaat yonent yi foofu danañ gis borom bi ne zurriyata man xamalna maa nuux innahu kaana abdan shakura noonu la ko borom bi melale mu ne kooku ab jaam la boo xam ne ab santaakoon la ku mën a sant la ba tey nuux ak luut alayhim assalaam mu ne imraata nuuxin wa imraata luut kaanataa taxta abdayni min ibadina saalihayn foofu borom bi nee na ñaari jaam lañ moom yonent yàlla nuux ak lóot ñoo xam ne ñaari jaam ñu baax lañ yuusuf mu ne innahu min ibadina al muxlasin kooku mi ngi bokk ci suñ jaam ñi nga xam ne dañ leen a xett bu dee zakariya yoo xam ne kaaha ya ayn saad dikru rahmati rabbika abdahu zakariya kooku mu ne borom bi tabaraka wa taala ma ngi tudd foofu di nett la aju ci ab jaamam bi ñu tudde Zakaria kenn ku ci ne jaam la koy wax mënoon na ne yonentam mënoon na ne ab kam yabal wala nabi wala mu ne xalil parce que yonent yi ay xaritam lañ wala mu wax wenen melokaan waaye li tax mu tànn abdahu pour wane ne kooku mat na ndax nangu na ak njaamam mu jox ko suñu borom tabaraka wa taala borom beet nangul na ko ak njaamam ayub mu ne wadkur abdana ayub wadkur abdana ayub id naada rabba na nga tudd sun jaam ba ayub waxaat feneen inna wajadnaahu sabiran ni'mal abdu innahu awwaab fekk nan ko mu doon ab muñkat daa dina jaama ngoog boo xam ne bu néew moroom la bu baax la kooku ab kon la ci borom bi tabaraka wa taala daawud mu ne wadkur abdana daawud dal aydi innahu awaab fàttalikul sun jaam daawud kooka am kattan la te itam ab delluwaakoon la ci borom bi tabaraka wa taala waxaat ne wa wahab naa li daawuda suleymaana al abdu innahu awwaab masix mu ne lan yastankifa almasixu an yakuna abdan lillah wala almalaikatu almuqarrabun masix du rëy du màgg màggalu di bañ a doon jaamub yàlla waaye moom nangu naa jaam nekk jaamu borom bi tabaraka wa taala muy isa alayhi salaam ba tey wax na ne in wa jaalnaahu masalan li bani israil wane ne moom de nekkul dara lu dul benn jaam boo xam ne nun noo ko may xéewal def ko itam misaal royukaay ci banu israil amma muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bu dee sun yonent nag li ko sun borom tabaraka wa taala tuddee jaam ci ay maqamaat yu kawe bari na lool bokk na ci mu ne wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli su fekkee da ngeen di sikk sàkka ci liin wàcc ci sunu jaam bi indi leen saar wu mel noonu in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawma alfurqan tey mi ne lan wàcce ca sun jaam ba bisu furqaan muy kero badar wax itam subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxarami ila almasjid al aqsa ki nga xam ne moo gàddaay moo rañaane ab jaamam guddi jële ko màkka yóbbu ko baytul maqdis waxaat tabaraka alladi nazala alfurqaana ala abdi li yakuna lil alamina nadira barkeel na day moom ki wàcce alquran ci ab jaamam ngir mu xupp bindeef yi waxit alaysa allahu bi kaafin abdah wa yuxawifunaka billadina min duni xanaa du sun borom tabaraka wa taala mooy fegal ab jaamam ànd ak ñii ñi ngi lay jéem a tiitloo ci ñeneen ñoo xam ne bokkuñoo yàlla fa awxa ila abdihi ma awxa wa innahu lamma qaama abdullahi yadcuuhu aaya yu bare bare bari yoo xam ne borom bi tabaraka wa taala suy tudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaam la koy tuddee kon kamaalul maxluq fi taxqiqi al ubudiyati lillah kooku qaayida bu am solo la bokk na ci moo di al xubbu wal xawfu wal rajaa chartun fi l ibada nit ki li muy jaamu jaamu gi suñu borom tabaraka wa taala ngir ak jaamoom baax day boole ak cofeel ci jaamu gi du yëg ne ab yan bu diis la bu muy yenniku ci waaye daf koy bëgg boole ko it nag ak ragal ragal a juum ci njaamu gi wala jaamu gi ñu bañ koo nangu boole ko tiit waaye nag boole ko it ak yaakaar sunu borom tabaraka wa taala ngir yërmandeem ci jaamam boo xam ne def na effort def na lim man moo tax kenn ci asalafu saalix muy wax ne man abada allaha bil xubbi waxdahu fa huwa zindiq koo xam ne da ngaa ñëw jël xubb dong dama bëgg yàlla rek def ko muy sa jaamu yàlla nee na kooku zindiq la ku génn diine te yëgu ko la wala mu yëg ko ba noppi di ko nëbb waxit man abadahu bi rajai waxdahu fa huwa murji koo xam ne da ngaa jël sa yaakaar rek nangu woo def dara suñu waxee nga ne yërmande yàlla yaatu na nee na kooku yaa nga bokk ci ñi ñuy tudde al murji amuy kuréel bu réer wa man abadahu bil xawfi waxdahu fa huwa xaruri képp koo xam ne da koy jaamu ci ragal képp nag xooloo yeneen yi ci des nee na kooku ci xawaarij la bokk wa man abadahu bil xubbi wal xawfi wal rajai fa huwa muminun muwaxid koo xam ne boole na nag cofeel ga ak ragal ga ak yaakaar ja nee na kooku mooy ko gëm yàlla kon kooku benn qaayida la ci qawaayidu salaf bokk na ci kullama isdaada al qalbu xubban lillahi isdaada lahu ubudiya li feeg nit kaa ngi gën a bëgg suñu borom tabaraka wa taala daf koy gën nangoo jaamu kon foofu nit ki mën na fee natt boppam su gisee ne mi ngi gën a jaamu yàlla mën naa am yaakaar ci boppam jàpp ne ak bëggam suñu borom tabaraka wa taala mi ngi jëm kanam bokk na ci al ibadatu lazimatun li kulli abdin ma daama aqluhu xaadiran ila ila an yamut moo di jaam bi ab jaam lay doon buy jaamu yàlla ba keroog muy faatu ngir ak jaamu yàlla mën a wér waaye amul fu mu koy yemale foo xam ne danaan su fa àggee rek jeexal na léegi àgg na fa mu jëmoon wala mu am kóolute ci ne moom mucc na léegi ci seytaane wala mucc na ci sawar yooyu yëpp du pas-pasu ahlu sunna wal jamaa ñoom jamono yu nekk dañuy tiit jàpp ne ba tey dese nañ borom bi tabaraka wa taala ko digle waabud rabbaka xata yatiyaka al yaqin jaamal sa borom ba kero dee di ñëw li fekk dee ñëwut rek te xel maa ngi fi jaamu gi daf lay war bokk na ci régal yooyu moo di la laa yubadu llahu illa bi ma shara borom bi tabaraka wa taala diisu ko jaamu lu dul ci li nga xam ne moo ko tër mu nekk sharia am wax na nii lañ may jaamoo luñ santaanewul diisu ci jaamu yàlla donte sax donte sax nit ñi dañoo jàpp ne lu rafet la lu rafet te yàlla rafetlu wu ko ba tër ko ne def leen ko loolu amut moo tax dañuy wax ne lu dul lu luñ yoonal lu dul luñ santaane loolu la muy mën a doon mooy bidaa te bidaa yépp marduuda la ala saaxibiha bépp bidaa dañ koy delloo ko ko sos waaye doonut loo xam ne li ñuy jëfe la di ko jaamu yàlla muy am njariñ doo am njariñ beneen regal bi mooy laa tuqbalu al ibadatu xatta takuna xaalisatan sawaaba ak jaamu yàlla di su ko nangu lu dul dafa dajale ñaari mbir xaalisa mooy mu sell ngir yàlla sawaaban mooy mu jub moo tax alfudayl ibnu ayad rahimahullahu taala dafa wax ne ci bi muy firi waxi sun borom tabaraka wa taala li yabluwakum ayukum ahsanu amala qaala axlasuhu wa aswabu li yabluwakum ayukum ahsanu amalan ki ci gën a rafet jëf nam ko firee daf ne ba ca gën a sell gën caa jub ñi ne ko yaa aba ali ma axlasuhu wa aswabu lan mooy ba ca gën a sell gën caa jub mu ne inna al amala ida kaana xaalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal jëf ji bu sellee te jubul duñ ko nangu wa ida kaana sawaban wa lam yakun xaalisan lam yuqbal xata yakuna xaalisan sawaba su fekkee dafa jubitam te sellut duñ ko nangu li feeg dajalewut sell ak jub mu ne wal xaalisu an yakuna lillah sell gi mooy yàlla rek a tax nga jëf du leneen wa sawaabu an yakuna ala sunna jub gi mooy mu tegu ci sunna na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon ñaar yooyu li ci sikk rek sa jëf kenn nanguwu ko kon nag loolu ku vérifier sa bopp foofu war ngaa tiit war ngaa tiit loolu bàyyi ko wal xaalisu an yakuna lillah wa sawaabu an yakuna ala sunna ba ca tegu moo di man ictaqada anna li ahadin min alawliyaai tariqan ila allahi gayra muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqad xaraja min diini lislam loolu qaayida la ci qawaayid salaf yàlla nañ ci yàlla musal moo di képp koo xam ne jàpp na ne am naw yoon muy jaare ngir àgg ci yàlla bu bokkul ak yoon wi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jaare woon nee na kooka ci jeneen diine la nekk ju bokkul ak diine lislaam ba ca tegu mooy al aslu fi l ibadat al xadr <clears throat> xatta yarida amru ijabin aw istihbab jaamu yàlla yi dañoo wax ne la cay cosaan moo di dañ koo tere lu dul nag ndigal dafa ñëw xam nga dañ lay wax ne yi ñuy jëfandikoo moom nga xam ne bokkul ak jaamu yàlla yi da koy jëfandikoo moom la ngay sol ak la ngay lekk ak wax ne lépp a dagan moom ba ba daray ñëw ab texte bi ñëw ne la nangam daganut waaye bu dee jaamu yàlla dañ lay wax ne yépp lañ tere bul def genn bul jaamu yàlla lu dul texte dafa ñëw ne la defal lii kon mbirum mbiram mbirum jaamu yàlla du fétal maanaam faw ci texte lay aju ci santaane lay aju ci ndigal lay aju lu jóge ci alquran wala mu jóge ci sunna door a tudd jaamu yàlla lu dul loolu kon duutu mën a tudd ak jaamu yàlla des na yeneen ponk waaye yooyu mooy yi ci gën a am solo ci loo aju ci wàllu jaamu yàlla ñu dugg ci tomb bi nga xam ne moo ci mujj balaa waxtu wee gën a dem ndax itam tomb bu itteel la muy manhaju salaf fi suluk bayaanu manhaju salaf fi suluk seenum seenu doxiin ak seenu nekkin ñoom as-salafu saalix ci lu aju ci wàllu jikko ak nekkiin lu am solo la lu mat a jox itte la ndax kat ci lu bare bari ci mbokk yi mën nañoo ittewoo wàllu aqida muy wàllu pas-pas ba di ca góorgóorlu bu baax a baax di góorgóorlu bu baax ci wàllu jaamu yàlla waaye bu dee ci wàllu jikko ak nekkin ak jëfiin da ngay gis léeg-léeg ak gàttañ lu di ci am kon loolu moo tax jox ko itte ci li am solo la bokk euh, kon bunt bi liñ ci jublu mooy bëgg a xam nag salafu saalix kayfa hum maanaam nan lañu ñu meloon gannaaw boo xamee ne nag jàng nañ ba xam lañ xam yaru nag ba noppi nan lañ mel na gannaaw loola lan mooy seen melokaan bi nga xam ne ku ànd ak ñoom di leen xool rek mën ngaa yaru ca loola ba jariñu ci kon dañoo bëgg xam seen melokaan loolu lañuy ñuy tudde sulooku sulooku nit ki mooy melokaanam ak nekkiinam ak jikkoom jëfiinam jaa na muy jaamoo yàlla xeet yooyu yépp jëfiinam kon kooku mooy sulooku nan tàmbalee ci seen manhaj ci al ixlaas alsalaf wal ixlaas jële nañ ci bakr ibnu maiz mu ne maa ru'iya rabia mutatawian fi masjidi qawmihi qattu illa marratan waxida bakr ibnu maiz muy bokk ci ñi àndoon ak rabia rabia muy cheikhu malik eh, moo doon sëriñub imam malik ci wàllu jàng mu ne rabia kenn mësu koo gis muy julli julli la ci jàkkay mbooloo moom daan jullee lu dul benn yoon lañ ko mos a gis mu di ko def kon da daan nëbb ak jaamu yàlla bëggul nit ñi di ko gis sufyaan nettali na ba tey jële ci rabi' moom mu ne kaana amalu rabi' kulluhu sirran ay jaamu yàlla am nee na lépp ci sekkare la ko daan def ne in kaana la yaji'u rajul wa qad nashara al mushaf fa yughatihi bi thawbihi léeg-léeg day toog ci këram tiim ab kaamilam di jàng sax di jàng alxuraan nit ne asalaamaaleykum mu gaaw muur ko mu gaaw muur ko bala ñuy wax naan ah kookat saa boo demee rek fekk ko muy jàng alxuraan kon ñooñu nga xam ne xéroon nañ ci sellal yàlla kese taxoon ñuy def wuñ ci woon nit ñi ndax tagg nañ leen ndax xas nañ leen loolu du seen mbir amuñu ci loolu soxla la am solo mooy na leen suñu borom tabaraka wa taala gërëm loolu lu bari ci nit ñi tey bu buñ toogoon nekk ci yeneen yëfi caaxaan nit mën na ne salaamaaleykum ñu fab ab téere wala ab kaamil ubbi ngir bëgg ñu xam ne diw sàngam macha allah soo dikkee yaa ngi koy fekk muy jàng soo dikkee saa boo dikkee fekk ko ci dara kon ñoom safaanu loolu moo doonoon seen melokaan abu jaafar dafa jële ci ibnu oyeyna muy sufyaan imaam bu mag ci asalaf mu ne mu joxe benn misaan boo xam ne kenn ku ne mën nga ci yar sa bopp fexe ba sa ixlaas nga jëmale ko kanam